wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki tali bi ci weeru safar bi ñu nekk mu am gan gu tedd boo xam kenn la ci yoonu murit muy sëriñ xaadim ngay jàngkat damay wax ni am rafet def nit ku koo xam ku sëriñ bi ñor la rek la bëgg ci biir xolam yeggale njàng mi foo xam ne nag mboolem ndawi jamono ba ba wax naa ko ki dem rek ne ko maa ngi nettali wax jooy wax nii ñi nga xam ne xaside yi dañuy topp nit addina yi di leen koo wayaane dese na ñoo xam ne dëgg-dëgg xaside loolu nag la tax mu sañ koo soññee moom ku ko gis ci programme bu programme ba jeexee boo ko gisaatee yaa ko fekke lu nit ku diñ ku am maana dama koy wax ne dañoo bokk bàyyi ndax suñu wajur daa am cofeel gu mu amoon ci moom bu woyof lool di suñu xarit di xarit jànkat xasida yi yàlla dogal tey jii nag mu seet si woon rakkam di xaritam nu bokkit Serigne Mouhamed Mbacke ñëwoon fii tey Taïf Nourou wax dëgg yàlla ab sag la ci ñun ndax ña bokk rek ay got ñooy laxasoo te sëñ Mbaye Jaxate daa wax ne mbokk ka bokk ak yow xol waxaat ne koo xam ne kii yéen a teeru bokk jëmu mën ngeen a ànd di wéy bokki waxi na ki jëf muy pas-pas bu dëggu ci moom ba xasida waaye bëgg loolu sangam ba Serigne Mbacke Mouhamed